dafa définir clairement euh, kan mooy journaliste ak kan moo dul journaliste hmm. euh, nañu teg carte de la presse nationale voilà procédure bi c'est il y deux ans hmm. nañu teg de côté carte de la presse nationale très bien dañ ne et journaliste euh, ki nga xam ne dafa génn ci école c'est ça ki nga xam ne dañ ko former dans le dans le hmm. mu def une une validation des acquis de l'expérience ki nga xam ne 60 euh, pour cent de ses revenus mu ngi koy tirer de l'exercice du, de... du du du du métier. Mm. c'est quand même incongru euh, ñuy coucher sur un papier. Hmm. Euh, naan parmi les li ñuy toppee Serigne Saliou. amul nekkul journaliste dafay def usurpation de de fonction c'est une situation anormale. Hmm. c'est une situation traumatisante te sax dafa ruslu ci ñuy jël loolu di ko teg ci ci kii journaliste actuellement il est au niveau. Euh, du tribunal mu ngi nekk mu ngi nekk commissariat. Mhm. di xaar euh, procureur mu mun a libéré wu. Mhm. mu yëy yàbbi ci li nga xam ne. Euh, moom mooy situation am. wax nga ko sànq Serigne Saliou Gueye yéen da ngeen koy accuser ne il est très proche de de de Pastef mbir mi nag. dafa dafa dafay nuru intimidation dafay nuru harcèlement euh, démb maa ngi koy wax Pape Djibril Fall may tooñ naan waxuma ne la justice est, est, est, est parce que j'avais posé une question dans ce sens-là hmm. mais euh, est-ce que ñun ñun dañoo commencé dañoo tiit quoi dañoo tiit sur nos libertés dañoo tiit sur notre droit d'informer sur notre droit d'informer sur notre devoir d'informer les les les Sénégalais on pour peut mettre des journalistes euh, dans des situations juridiques compliquées juste parce que ces journalistes-là ne vont pas dans le sens que vous voulez. waaw gëw ma ne wax dëgg yàlla nag c'est ça la la situation. Euh, si. vous me dites que vous, avez peur je vous crois mais vous ne pas l'air par contre soo ma ko waxee ma gëm ko. Euh, je suis préoccupé. oui moi par je suis... cette, par cette par cette tendance. à à mettre aux arrêts des journalistes et puis. avec moi, je avec, pense... avec des motifs très légers. moi je pense bon sur le qualificatif moi j'ai lu dans la presse comme vous hein que euh, il n'aurait voilà il serait usurpation de fonction il n'aurait pas la carte de presse dans les faits. euh, les heures qui suivent nous diront concrètement ce qu'on lui reproche, etc. Outrage à magistrat, parce que je ne sais même pas dans le fond de, de quoi il s'agit. Mais ce que je voulais dire en parlant de la carte, c'est une chose. C'est surprenant qu'on puisse dire, et je le confirme avec vous, que Serine Salou Gay n'est pas journaliste. Ah, ça, ça c'est de notoriété publique. Mais je euh, Quand, on va jusqu'à dire qui est journaliste et qui ne pas, et que Serine Salou Gay, on puisse penser le classer parmi les gens qui ne seraient pas journalistes. Ensuite, ce que je voulais ça dire... Ça renseigne aussi sur une, sur une volonté de faire taire des journalistes qui décident de pratiquer librement leur, leur, leur, métier. D'abord, je, je, pense pas, je n'ai pas vu cette volonté, mais même si cette volonté existerait, c'est impossible au Sénégal. Pourquoi Mais parce que nous sommes le Sénégal. Et l'ADN de notre démocratie, Maïmouna, c'est d'abord un système électoral oh. transparent, mooy système électoral boo xam ne mun nañ ci dugg def ko sans mu am problème mais deuxième ADN bi mooy liberté de la presse. mais vous êtes en train de compromettre cette cette cette liberté là. non non non loolu 2020 diggante mois de janvier ak léegi. ñaata journaliste ñoo journaliste la ñu jalti jaltee du commissariat à la à la cave euh, avant ñu leen di avant ñu leen di libérer vous êtes en train on va vous le dire ah. vous êtes en train de remettre en cause. les fondements de la liberté de presse dans ce pays là. non non non mënuñu di arrêter des journalistes parce qu'ils exercent mm. un journaliste. pluralisme d'opinion wala ah voilà, parce que ils ne vont pas dans le même sens que vous, vous êtes l'incarnation et, il faut arrêter ça vous êtes yow sa bopp yaay mandargal mais peut-être que demain moi aussi on va m'appeler parce qu'on aura crié un mot euh, dans mes propos pour voilà et vous le savez bu ñu naxante suñu biir xam nga ne dara du la ci fekk ah tu fais tu fais partie des journalistes les plus libres du pays je me suis en terme en terme de liberté de ton liberté éditoriale yow ak sa morom da ngeen a bëri macha allah et c'est ça qui la marque de notre démocratie mais dañ ko war préserver dañ ko war a préserver par le principe de l'éthique et de responsabilité journalistique il y a des journalistes y compris parmi ñi ngay wax ne ñoom lañ inquiété ces six derniers mois qui sont sortis depuis longtemps du métier qui font autre chose mais c'est peanuts sur la majorité des journalistes du mais des journalistes moi, qui s'assument. Moi j'estime une posture. Moi j'estime un journaliste qui va à l'antenne taxaw di appeler à s'attaquer aux forces de l'ordre en pleine antenne tu n'es plus dans ton métier tu es dans autre chose. Parmi les journalistes arrêtés ah ministre qui qu'est-ce qui s'est rendu compte Pape Alé Niang l'a fait. Pape Alé Niang n'a jamais appelé les jeunes à attaquer les FDS. Euh, il l'a fait bon deuxièmement. il n'a jamais non il n'a jamais ah, appelé les jeunes à attaquer les ma joxe un deuxième exemple. porter ah. des accusations sur euh, l'état-major de l'armée et de la gendarmerie des pratiques qui n'ont jamais existé parmi les pères fondateurs de la liberté de la presse sénégalaise. il a outrepassé ses lignes plein de fois. Et il y a plein d'exemples comme ça qui ne concernent pas les journalistes du pays. Et je ne suis pas d'accord qu'on généralise pour tous les journalistes. Mais l'exercice de la liberté de la presse sénégalaise, c'est le symbole de notre démocratie. Ah, voilà. li nga xam ne nit mun na wax xelam ak xalaatam taskatu xabaar yi mun nañ liggéey ci liberté fépp ci réew mi wax seen xalaat suba ak ngoon dal ci Macky Sall comme ils te dara du ci fekk loolu moo bokk ci li mandargal démocratie mais dal ci Macky moo gën a sedd léegi nga critiquer la justice. Mm, c'est-à-dire aujourd'hui nga nekk nga toog nga wax ci Macky Sall ci nga gën a mën a mucc que nga joxe sa avis sur le fonctionnement de la justice. mais les gens le font tous les jours. non Serigne Saliou Gueye Serigne Saliou Gueye est un professionnel. mais y a pas que lui. je ne pense pas que Serigne Saliou Gueye dina yëkkati ay kàddu yu teggu niwul di jël di ko di ko di ko teg ci kaw justice wala ci kaw magistrat parce que c'est quelqu'un qui a bien appris son métier et, et qui sait euh, comment exercer ce métier là. may mun a war ngeen sàmm ñaari yëf benn bi c'est pas parce que journaliste nga que tu es au-dessus de la loi que tu peux dire ce que tu veux ça ça n'existe nulle part dans le monde deuxièmement c'est pas parce que deux journalistes ont maille à partir avec la justice que toute la presse sénégalaise est harcelée ça ne reflète pas la réalité mais c'est euh, problème bi fi am soo ko xoolee dans le fond dans le fond on a un problème d'encadrement de la liberté de la presse la de la presse elle s'exerce le problème c'est que sur bien des sujets comme la la, la vérification des sources euh, sur euh, le respect euh, de la dignité euh, de l'homme par exemple et de l'intégrité de de de de de l'intégrité de l'intégrité publique en général et l'intégrité et la dignité humaine parfois mu am ay dérapages sur des questions de diffamation il y a eu des dérapages sur la les sources de l'information la crédibilité la vérification des sources parfois ñu am ci ay difficultés la liberté de la presse ça s'encadre Maïmouna par l'éthique par, euh, par la formation et l'autosurveillance entre nous. Je suis d'accord qu'il y ait une solidarité corporatiste, mais il faut aussi être dans l'autocritique. Il y a certains parmi euh, vous qui ont le courage parfois d'aller sur la critique, de faire face au problème mais cette idée euh, qu'un journaliste est au-dessus de la loi, un journaliste est au-dessus euh, des principes de responsabilité et d'éthique yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ŋànk métier bi loolu aussi baaxul ci métier bi et jar na ñu surveiller ko mais plus que jamais li symboliser démocratie sénégalaise liberté de la presse la ak principe d'élection libre et transparente. les journalistes ne se sont jamais cru au-dessus de la loi. il y a eu tout un débat autour de la dépénalisation des délits de presse c'était pour éviter eh, que ñu am l'impression qu'il y a comme une chape de plomb au-dessus de nos têtes et aujourd'hui je pense que euh, le sentiment le mieux partagé c'est qu'il y a une chape de de de de de de, de plomb l'épée est là yaa ngi def émission yaa ngi wax ça veut dire que aujourd'hui un journaliste bu bu bu ko mbir mi jàppee il peut avoir peur de dénoncer les travers de la justice. mais mais et, mais, et, et, et il faut reconnaître qu'il y a des travers. mais mais la, la la la la la justice c'est une œuvre humaine voilà elle n'est pas parfaite et s'il y a des travers un journaliste a le droit a l'obligation d'en parler. maintenant ku wax ñu ne la offense offense offense au magistrat. mais soxna si ku wax ñu ne offense xaw ma atteinte euh, au mu tudd. outrage à magistrat voilà à magistrat <laughs> ku wax ñu ne atteinte. Euh, xaw ma aux institutions non mais attends faut arrêter quand même. mais mais a il faut mënuñu di wax sans wax ci contexte suñuy wax dañuy wax fi ñuy waxee. mais contexte mun naa la limal journaliste yi ñu fi jàpp ah, yëpp. ñëw ci ay mbir yoo xam ne ah, ah, Pape Alé bi bi commissaire yi yàgg jàppee ne. joxe na information information bi dëgguwul mais ñu traité ko nu ñuy traité comme les tous tous les actes de diffamation parfois le gars il te saisit tu utilises le même canal dans les années dans les années dans les années 2007 2008 yaa ngi woon ci fii ci réew mi tu étais dans le métier di gis pratique ci fi xewoon ci relation état ak journalistes yi le nombre de plainte yi joxe pour diffamation di ci topp ay journalistes entre 2000 et 2012 yow xam nga ko euh, le nombre d'agressions physiques qu'il y a eu des journalistes de la part du pouvoir yow xam nga ko avant 2000 dans les années 80 lorsque certaines certaines presses étaient même clandestines on se souvient euh, de, euh, de du redressement bi ñu tegoon ci kaw Sud FM le groupe di leen agressé. au quotidien loolu la ñuy dund tey déedéet loolu mu amu fi. te xam nga ne amu fi. pendant longtemps j'étais d'accord avec le président loolu may mun a euh, loolu. et moi-même je le disais. may mun a quand le président disait que sous son magistère. il y a pas de journaliste en pas. prison dafa non, dafa ne y a pas de journaliste en prison la presse ak Macky Sall les choses se sont à peu près bien passées. mais depuis un an depuis l'éclatement de cette affaire-là les relations sont en train de se dégrader mais may mën a toute liberté suppose des responsabilités et mënu leen ñu gaale ci suñu rang ci suñuy rang lu journaliste wax ñu jël ko jàpp ko. loolu xew c'est une situation inacceptable may a loolu xew et il faudra y mettre un terme. jàpp journaliste bu mel ni Serigne Saliou ak ku mu mënta doon. dafa mel ni rek tey ñu jàppoon ma naan man damay usurper fonction. parce que je ne détiens pas une carte de presse. lu tax ñu di la jàpp yow. mais peut-être que je peux dénoncer les travers de la justice ñu jàpp la. pour lan pourquoi ñun ñu war a toog bu ñuy wax di surveiller mais man alors qu'on woo ko ragal soxna si. man man ragaluma. waaw nii woo ko ragal mais à un moment woo ko ragal te yaakaaruma ne y a une cabale contre les journalistes. loolu amu fi. tu refuses d'entendre li ma la wax sànq. les arrestations des journalistes dans les années 2000 xam nga ko. les arrestations et les attaques contre les journalistes dans les années 80 90 xam nga ko sous le magistère du président Macky Sall loolu amu fi mais dama jox la benn exemple. il y a un célèbre journaliste qui est parfaitement un bon exemple ci contexte bi Ahmed Aïdara l'actuel maire de Guédiawaye mais Ahmed Aïdara a utilisé une plateforme médiatique en tant que journaliste di def revue de presse accuser à tort des hommes politiques vilipender leur notoriété dans le pays sans la moindre justification et la moindre preuve te def ci bëri morom métier bi compte tenu de l'évolution ak compte tenu de li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi impact bi moom il faut qu'il y un principe de responsabilité man d'accord ma ne journaliste buy xëy fii Sénégal sa fit day dem pour nga def sa métier su doon loolu mu feeñ ci suba les une des journaux ici on n'a pas de discours monolithique ci presse bi loolu amu fi mais il faut que journalistes yi jël seen responsabilité un journaliste ça veut pas dire que tu es au-dessus de la loi et que lu la neex wax lu la def loolu amul fenn je pense que si nous ne prenons garde le principe de liberté de la presse parce que liberté de la presse ñu ngi koy xool vis-à-vis du pouvoir rek mais y vis-à-vis de l'argent vis-à-vis des réseaux d'influence il faut que ñu xool naka lañ cee encadrer suñ ko deful on va perdre cet acquis qui est un acquis essentiel c'est-à-dire la liberté de presse ak acquis de ak liberté de conscience bi nga xam ne moom mandargal essentiellement sunu modèle démocratique man fooguma ne loolu c'est en danger su doon en danger suba nga gis ko ci presse bi en tout cas les associations de presse jot nañu jël euh, seeni responsabilité parce que lii di ñëw nii du jur jàmm ci suñu profession ak ci liberté bi nga xam ne moom la ñu war a disposer yépp pour pouvoir faire notre notre notre métier. waaw waaw liberté aussi en général de toute façon il faut la surveiller il faut se battre pour la préserver au quotidien mais du toujours dans la même direction soyons plus vigilants je pense que ëpp na. simplement un rapport entre le pouvoir central ak des journalistes loolu amul benn pouvoir bu koy def ci démocratie bu mel ni sunu bos ba pare am yaakaar ne mun nga ko gañe munuñ ko gañe loolu su doon loolu la duñ ko gañe moo tax ma ne la ñun nekkuñ ci loolu la preuve yow ci es libre yaa ak sa morom journalistes yi ma dajel euh, sur TFM ak ñoom Papa Ngagne yi sont libres de ton les gens font leur métier avec liberté mais avec responsabilité mais il faut que la presse elle-même et les acteurs de la presse, les mouvements syndicats, euh, syndicaux et également les organisations fêtières prennent leurs responsabilités aussi pour encadrer cette liberté dans le sens de plus de responsabilité et d'éthique. Problème boobu moo fi am mais fii gëw ma ne pouvoir central mun na agresser la liberté des gens c'est pas possible parce que loolu dafa bokk ci sunu ADN mënul deñ la liberté de la presse sénégalaise est un acquis irréversible loolu nit mënu ko mënu ko attaquer mënu ko dindi. heureusement que vous le dites. Ah. acquis irréversible mmh. démocratique. Oui. Euh, ce serait utopique de penser euh, qu'à force de de de de garde à vue euh, de séjour en prison on peut obstruer notre liberté. de yow de may mun a fekk ñi ngay organiser sa liberté de la presse sa liberté de ton ni nga koy defee nii gëw ma ne dara dina la ci fekk. ndax tu le fais avec responsabilité. avec éthique attaqué woo nit wu ñuy woo sutura kenn attaqué woo des institutions wu ñuy woo war ma kenn et loo wax da nga koy sourcer prouver ko et tu es professionnel et libre de ton mais il faut qu'on encadre les gens à assumer cette même responsabilité man je pense à ceux qui font leur métier avec professionnalisme au nom de quoi ñiy saaga ñiy attaquer institutions yi di wuñi des secrets d'État di menacer les institutions ñoom ñooy des journalistes libres Et ceux qui font leur métier avec responsabilité et dignité, on veut leur dire tous que vous êtes des collaborateurs. Vous n'êtes pas vous êtes des collaborateurs du régime. J'ai posé le débat avec C'est un mal de notre métier. Mais c'est terrible. Et je pense que les associations de presse am nañu le sens des responsabilités boo xam ne tous les journalistes qui se sont rendus coupables de de de de, de ce genre euh, de comportement aux antipodes euh, des exigences de, de notre métier. Euh, elles se sont tues. Mmh. elles ont refusé de prendre position. Mmh. mais lii déri lii mu ngi commencé nuru dérive. je je de toute, façon je confirme ce que ah. tu dis dans le sens où waxuma ne li nga wax noonu dérive daf fi am dérive amu fi mais li may wax mooy le principe même de la liberté de la presse lu ñu war di surveiller la en permanence mais avec subtilité et intelligence d'ailleurs xalaat rek ne liy menacer liberté de la presse mi ngi jógee ci état bi. mun na bañ jóge ci état bi mun na jóge. aujourd'hui li menace liberté de la presse jógewul ci état bi kese aujourd'hui on fait face à une classe politique particulière euh, boo xam ne dañuy mbubboo démocratie fépp naka ah, te gëmuñu démocratie parce que de la même façon l'état à le a le monopole de la violence état boo ko tooñee euh, wala le pouvoir euh, politique bu ñu amee problème ak yow il peuvent user euh, de prérogatives euh, voilà teg la loxo en utilisant la justice mais de de de l'autre côté aussi nous sommes violentés euh, nous sommes insultés nous sommes piétinés euh, à longueur de à longueur de journée. Mm -hmm. tout simplement euh, parce que ces hommes politiques là voudraient que ñu dem dans le même sens que ñoom euh, que ñu épouser li nga xam ne moom mooy seen philosophie. et pour boucler euh, mmh. cette, cette cet épisode là euh, jot na ñun ñu jël suñuy responsabilité en refusant d'être inféodé ouais. à quelque moi je suis, partie moi je suis euh, que ce soit je suis optimiste ah. en tout cas mm. euh, on témoigne notre soutien mmh. à notre confrère Serigne Saliou Gueye les prochaines heures vont nous édifier sur sa